du Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf coowal mbës mi yoon bësaat na ko ba talaata jii di ñëw l'observateur nañu procès bu suyul beauté bi ñu waroon a amal démbu ca chambre criminelle bu tribunalum Dakar layo bi dàq nañu ko ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai ci audience spéciale ca ñu koy àtte bu dee Ousmane Sonko xandul woon ci tribunal kii di Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye ak docteur Alfouseyni Gaye ñoom ñoo nga fa woon àndoon ak seeni avocat juge bi di Hippolyte Ndeye l'observateur la yéenekaay bi mi ngi ne suba la procès ba maanaam ci altine ji procureur bi dafa convoqué woon Ndeye te code pénal bi ci article daf ne audition bu ni mel waree su ko def lu yées ñetti fan laata procès bi procès boobee Sud Quotidien nee nañu talaata jii di ñëw ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru mee ci la ko war a lii Quotidien di laaj ndax fii ak dëgg gi dina feeñ ci mbiri Sud Beauté yi bu ko defee askanu Sénégal xam lan moo ci xew dëgg-dëgg Moustapha Sarr ci xët mu njëkk yéenekaay bi muy wax na président bu chambre criminelle dafa gis rëq-rëq yu am ci enrôlement bu dossier bi maître El Hadji di avocat bu Adji ni ñu ci yéenekaay bi dafa am ñoo xam ne dañuy daw procès bi di nëbbatoo ko làqatu ndax ragal a jàkkaarloo ak Adji bu dee Ousmane Sonko ko tax di wax moom Ousmane Sonko kenn ci avocatam di maître Youssou Camara mi ngi wax ci journal Les Échos di Ousmane Sonko bu ñu ko joxe ab convocation ba ko danañ ko conseiller ngir gi nag maître Youssou Camara ne mi ngi dépendre ci moom day fay leeral ne Ousmane Sonko tollogul ci fu ñu naan nañ ko dem jàppi fa la force journal mi tuddee yëf yi comédie judiciaire mi ngi ñuy xibaar ne wax nañu ne Ousmane Sonko nangu naa dem tribunal ngir moytu deret tuuru ci réew mi Vox Populi nañu layoo bi làmbo ay mbiri saay-saay procès Salas talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mee ci la ñu ko war a àtte coowal viol gi le témoigné ne nañu viol du ko gën seer ci république bu Sénégal ne yi fi yu mujjul ci réew mi na dayo lu jege yu bari taal fi bari ay bés yi nit ñi duñu dem di liggéey li ñuy mobiliser ci ay force de l'ordre ak moyens yañ def nag yéenekaay bi nee nañu kenn xamul nu mu toll fi ñu toll tembe libération mi ngi ñuy xamal ne langue waa Pastef yi ñuy teg loxo langue gaa ngay gën yokk ko ne ginnaaw ay responsable parti Pastef ci Louga yu ñu jàpp ginnaaw activiste bii di Ousmane Sarr Mati Sarr ñang di journaliste waa sûreté urbaine jàpp nañu ko démb ñoo nga ko jàppee ca ginnaaw ray moom it jàpp nañu ko ak tuumay appel à l'insurrection waa division investigation criminelle ñoo ko jàpp ba transféré ko Dakar coordonnateur communal Pastef bu Kolda moom it jàpp nañu ko mbër mii di amaneex it yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne police bu Tëngéej jàppoon na ko ba téye ko ginnaaw bi ca la ko bàyyi wata police bi ñu taaloon ca Ndar source ne nañu yoon teg na loxo ki ñu jàpp ne moo ko def ab marchand ambulant la bu ñu naan MS juddoo ca tamit source a nee na ñu ñi def lu ni mel gendarmerie bu Kër Massar jàpp na juróom-benn ci ñoom ñun nañu dellu ci l'observateur xool yi fa waxtaan wi journal bi xëy séq ak borom FSD/BJ di Cheikh Bamba Dièye dialogue bu président Macky Sall woote Cheikh Bamba Dièye nee na ba fi nekk ni ay naxay la gën a nirool li leen tax a génn ci coalition Yewwi Askan mu ne dañoo dem ba gis ci ay doxalin yu dëppawul ak démocratie wax na it ne politique ak ni ñu koy doxalee jàmmarloo ak ñi bëgg nasaxal république bi rassemblement national bu mag nee nañu moom la mouvance présidentielle bi di waajal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ca place de la nation ngir wane fa seenu gu ñu dogu ci défendre république bi Le Quotidien nañu ñiy bañ a dégg waxi candidature bu président Macky di waa f ministre Doudou Ka indi na moom it s ngir jàmmarloo ak ñoom L'Observateur nañu convergence des démocrates pour la sauvegarde contre candidature bu Macky Sall 2024 quatre di tekki ñeent ñeent bu fukk ci yéen kay ñu xëyandool ñu bari ci ñoom xëy nañu di ñu tàgge sang bu tedd bi fi bàyyeekoo démb di Cheikh Bekay Bekay Kunta mi ne woon xalifa bu Njaasaan L'Observateur Le Quotidien Témoin Soleil National Enquête Sud Quotidien Tribune L'Info Vox Populi Bës Bi Le Jour ñoom ñëpp xëyati si ba dañu xamal it ne kilifa gu màgg gi di Cheikh bu Sidi Makhtar Kunta moo ko wutu ci jal bi mooy léegi xalifa général bu Njaasaan seen agence de